tay c'est le 14 février tu vois donc c'est un jour bo xamné c'est assez spécial si ñaan ñoo xamné dañu bëggante si ñaan ñoo xamné par exemple def nañ 5 ans de relation donc tay di voilà ça prouve que tu m'aimes toujours et tu me m'aimeras donc tay di euh dund nañ du neex dund nañ du naqari mais bé li mu si gëna a jàngat mooy par exemple tay suñu relation war ñu say min def doomu aadama waru cee dund parce que tay gis nga yàqkat yi dañoo bëri tu vois mais loolu yow yaa koy bañ mais yow da ngay de. mais waaye yow ma ala ko mbay moom ñoo bokk benn këram moom moo tax ba ma tax a wane ne léegi ci buntu kër gi pourtant lii mu ma ko taxa ngeen neen sans rendez vous ñu dem la ma wax. du ma copain am boobu. ah xam na. gibi çomak. үсээ бай мэдэрхэн юм чигээ. Мөн дан гүсэн бэт намаа. Нахог орнан гижаар гөрөө. ko man ko kul la ma yaakaaruma mako won ci mom ne bu ko gisse da ngay nan kul la nek na ma de fogo nan du genre yoy de kan kañ toog do fri Ousseynou mo ndax man bet man li nga do la bëgg a xam la la ko jëm nee ko may dem ko Ousseynou yaa sa wajjo ba Wa waaw dégg naa fan ne ngeen xulo won xaw Ngeen leen boole ñi am tuuti problème nii rek xam nga couple la daal loolu du ñàkk. bu dee dèjà problème jigul da feebar bu fekkee bëggante ngeen yéen ñaar ngeen jàppante te yàlla tax. incha allah.

barki yàlla du yàlla franchement tim dégoûte eh. wallaahi tim dégoûte eh. yow i eh, laa juma la gis nga message boobu nga gis loo may wax gis nga message boobu nga gis man mi ma ma ma amoo loo may wax yow yaa mën a duul yow yaa may dégg bay naa la aduna alaxira alal lu ko sàggan ku farlu moo koy mujjee mais ah. taxal ma expliqué la bay ma yow bay ma bay kii mu dem bay kii mu dem yow loo mën a affaire investir yi noo ko mënee tas diggante ñaar ñoo xam dañoo bëggante. waaw parce que je t'aime. loolu lan yow dama la bëgg jugal nga da nga mais bi nga demee euh, Kumba moo fi ñëwoon. fekk fi meer amee mu akolaat ma léegi day jàpp ne maa kooku dañuy génn mu koy li xew quoi en fait la mu génn dem ne ma suñu relation na fi yam ci ko defal cinq ans de relation teew xam nga ne kumba rek laa nopp ci kaw suuf si kaw suuf loolu yëpp c'est pas grave. naka te message yi ma doon envoyé tout ça ngoone elle était derrière tout est que xarit donc xarit amati na quoi. xam nga frère adduna bi dafa tëradi te fu mu toll nii ah, comme ni nga ko waxee rek kenn xamul na xarit am na kenn xamul na xarit amul. Thiam Thiam est-ce que sama dund bi am na tamit njëriñ Thiam. ay kumba lu xewati kumba lu a bëgg laa chaque jour lan laa lay wax. Oh, chaque la suivre sa sa sa jàng bii ni ngay jàng dèjà yow yaa ngi nii war a tukki ah yow dèjà yow feebar bi nga am amul mënul bëggul kaf bëggul reetaan bëggul bëggul kii nga bëgg a boole loolu yëpp bëgg jël def ko sa xol bii nii xam nga kar jaag baaxul kumba tee ngaa jël sa xol bi nga fiixal ko nga bëgg jël sa xol bi bëgg ko jël ka yàq ndax la pour lan góor góor da kaa jar ma góor sax taxul ma jooy waaye sama mère ma génn ak moom cinq ma dem di génn kooku. loolu yëpp góor loolu yëpp góor la loolu yëpp góor la loolu yëpp góor la. tey <laughs> na waa daal man damay wax ba sonn.